mbokk yi maa leen di sant bu baax di leen gërëm di am mbégte tey teew fii pour def lancement parrainage de la grande coalition Benno Bokk Yaakaar bi nga xamante ni 2012 ba léegi mosuñu perte ay élections. donc nag jàpp naa ne tey mbir mi continue ne la rek day ñëw rek yomb donc maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp mais nag di saluer présence massive bi nga xamante ni tey aska bi ñëw nañ wuyu si si lancement parrainage bi nga xamante ni moom la ñuy def nuyu nag les parties composantes de Siggi mais également de la coalition Benno Bokk Yaakaar parce que ñu fi jël kàddu ñëpp tey ku si nekk. mbooloo moo topp sa gannaaw gëm-gëm nga am vision nga am partagé avec le plan Sénégal émergent moo tax nga ñëw ànd ak man ci projet bi ñu am pour réélire notre candidat Amadou Ba parce que je pense que l'objectif c'est de gagner les élections de 2024 donc di kontaan bu baax si les partis alliés yi nga xamante ni tey ñëw na ànd ak ñun si mission mais rafetlu ñi nga xamante ni dañoo àndoon ci plateforme bu ñuy wax Siggi 2024 ak Macky tey nag ñu jëm ci TMP 2024 Thiès pare Amadou Ba mais Sénégal pare Amadou Ba pour 2024 dama di leen remercier bu baax bi tey toutes les régions du Sénégal sont représentées. point foofu ñu amoon si élection la ba ñu doon lancé les pétitions ñëpp ñëw nañ teew parce que bi ñu paree pétitions yi ñoom ñëpp dañoo ñëw engagé wu ne kat dinañ ñëw continuer choix bi nga xamante ni moom la président Macky Sall def parce que dañoo amoon yéene président Macky Sall nekk candidat ba ñu dem wutali ko un million de signatures ñoom nag ñu ne. un million de signatures yooyu ñun dañ koy traduire en parrainage te loolu bu ñu ko waxee te jàpp naa ni ñun rek président mënoon na yem ci président Ablaye Gueye pour wut ay parrainage ndax pétition bi mën na refléter nombre de bois bi nga xamante ni moom la ñuy laaj ci parrainage donc nag tey ku jël engagement taxaw ni damay ànd ak yow ci loolu di ko gëm ndax ba mu méttee kenn ñemewul woon taxaw. wax la candidature du président Macky Sall la plateforme Siggi ak Macky ñoo taxaw dugg ci gox yi dugg ci kër yi waxtaan ak ba ñu am plus de un million de signatures je pense que ni moom ñu jël rek reversé ko au niveau du ministère de l'intérieur wala président Macky Sall notre candidat Amadou Ba pare nañ ko ba pare. lancement yi nag ñëpp xam nañ mooy naka la ñuy demee ci parrainage yan yoon lañuy ñuy teg pare ni Cees nag dafa bëri ay ñoo xamante ni xam naa dañuy gëm wala ñuy tëdd di gént ndax fan rek dégg naa ku taxaw ni moom amagum na trente mille signature te parrainage ba ñu commencé matagul sax une semaine donc caaxaan bi dañ ko bàyyi tey wax nit ñi dëgg mais également tey def loo xamante ni c'est fiable parrainage du rek da dem. wuti benn base de données jël say fiches di remplir nit ñi da ngay dem seeti leen waxtaan ak ñoom convaincre leen ñu signer la parce que ku la signer moo lay voteel mais dem kenn xamul lu ñu jëlee parce que léegi moom am base de données yomb na da ngay dem fay kenn génneel la base de données ñi dëkk Thiès ñëpp nga génneel la base de données ñëpp xombal yëpp ngay remplir di remplir moo tax bu leen ragalee nag ñuy jóg di yuuxu naan dañ ñoo ragale parce que am na nombre nangu bi am fiab bi nangu bi am wóorul ñun nag bu ñu xam xam ni ñun dañu organisé parce que xam ne mouvement si ni monte na quatre cent cinquante cellules cellule bu nekk def trente personnes ñu nekk presque plus de seize euh, dix mille personnes ma ne nag seize mille quatre cent personnes bu nekk na ma demal si kër wax papa ak rakam ak yaayam ñu signé ko su boobaa on aura soixante-dix mille pare mouvement Siggil Jotna rek seul le mouvement Siggil Jotna rek peut atteindre soixante-dix mille signatures ici à Thiès waxuma la nag sama jàmbaar yi nga xamante ni ñoo ànd ak man su ma si gisee sama frère Théo ah je pense que ni tey Thiès rek mën nga romb cent cinquante mille pare waxuma la ak sama jàmbaar yi nekk waa région Benno nekk commune Thiès ñi nekk commune Thiès Ouest donc je ne tey bu leen kenn am na ñuy dugg si kër yi naan Ablaye Dieye moo ñu yónni parce que nag Thiès Ablaye Dieye moo leen saf ku bëgg ñu ànd ak yow da nga naan Ablaye Dieye moo ma yónni bu ko defee ñu ne gaawal gaawal jox ma ma signal la ndax gis nañ Ablaye Dieye li mu ñuy taxawoo gis nañ ni muy jàppale xale yi gis nañ ni muy jàppale santé gis nañ ni muy jàppale éducation parce que loolu mooy politique politique nit ki soo ko amulul njëriñ du ànd ak yow nañu xam ni politique njariñ la président Macky Sall wax na nit mënoo moom sa poos moom nit ñi politique kenn def ko ba ñuy am li ñuy am dañ ko am démb dooga ñëw def politique dañu xam ni politique valeur la politique gëm-gëm la politique du naxaate defuma politique ngir dama bëgg poos defuma politique ñu nomee ma ma nomee woon ma mer dem nañu bàyyi loolu xam ni politique ngor la politique jaamu yàlla la wala di dimbali doomu aadama yi képp ko fi def dana fekk nga mën ba lépp loolu si mën a fekk fekk la ci ñun nag li leen wax ne mooy c'est l'heure de rassembler di woo toute la coalition benn bokk yaakaar ne tey sama rôle mooy appeler à l'unité ñu bokk ndey bokk bàyyi ndax sama yéene mooy Thiès mën a gagner les élections de 2024 ndax kat challenge la président Macky Sall li mu def Thiès 2012 ba léegi jox na Thiès li mu mënoon yëpp jox na Thiès nomination ministre jox na Thiès nomination DG jox na Thiès nomination PCA namee na fi ay chargé de mission lépp loo xamante ni euh, lu baax la président Macky Sall indi na ko parce que tey jàpp naa ni Thiès jóge Dakar ñëw Thiès dafa mel ni nga jógee Yoff dem bi donc loolu tey président bu ko defee si wàllu infrastructure développé bi ay ay projet yoo xamante ni Thiès waay nañ ci gis seen bopp donc je pense que ni loolu Thiès waay war nañ ko delloo njukkal àndandoo nekk benn bàyyi euh, euh, suñuy égo ñu àndandoo fexe ba parrainage yi ñi ñuy wax opposition ñun doon wax ñoom ñoom moom Thiès c'est bon ñu ñu pare daw parce que léegi ki moom Thiès mu ngi nii léegi nag borom Thiès.

gis naa fi loo xamante ni kenn mënul taxaw sama wet ne yaay borom Thiès ni yow yaay bëgg defar Thiès man nag Thiès waay maa ngi leen di wax sama taxawaay fii ma taxaw mooy taxawaayu premier ministre Amadou Ba mooy taxawaayu premier ministre président am leen confiance ci seen doom am leen confiance ci ki nga xamante ni mooy Ablaye Dièye xam ne lépp lu am. Thiès la koy jox lépp lu mu am waa Thiès la koy bokkal su ma yokkoo Thiès yokk parce que man wutuma lenn lu dul yokkute Thiès donc ñu leen wax ni dañu àndandoo parrainé moom candidat Amadou ne fii si ñu nii euh, man man sama dayoo sama dayoo ci parrainage tolluwul commune bi commune bi dégg naa deux mille six Euh, fiche lañ leen jox mille cinq cent fiche man le délégué national moo ma fekk si ba sama bureau jox ma cent cinquante mille fiches ne ma ñoo ma yaakaar pour le parrainage loolu nag ñu ànd ak man ñëpp formé nañ ay comité au niveau des commune commune bu nekk sànq notre frère Lamine Sène expliqué na ko donc jàpp naa ni à de lundi dinañ leen woo day ñëw jël fiche jox leen ko ñun wax leen naka ngeen di parrainé parce que aussi parrainage bi warul am rature warul am doublon warul am ay fausse information parce que nit bu la joxee nga bind da ngay xool parce que da ngay nit ki mooy taxaw nga bindal ko li ma leen di wax ku ngeen gisul bu leen ma kenn dem wutali ma ay cadante yoo xamante ni gisoo ñi nga xamante ni ñoo la war a leen da nga taxaw mu jox la cadante nga remplir ko jox ko mu signé loolu mooy parrainage bu fiable parce que ñun duñu naxante duñu nax kenn ñi fiy naxaate nag dafa bari des candidats fantômes yu jóge faneen ñëw fii bëgg a am ñoo xam ne ñu ngi leen di présenter ñooñu dañ leen di nax fii parrainage yi fi am mooy Benno Bokk Yaakaar mooy Thiès parrain pour Amadou Ba ku bëgg ku a am parrainage boo jaaru si Ablaye Dieye doo ko am te Ablaye Dieye àndul na kenn ku dul le premier ministre Amadou Ba loolu candidat avec le travail du temps pour gagner les élections de 2019 parce que nag Sénégal réewu jàmm la Sénégal dafa inscrire si continuité émergence loolu nag kenn du ko arrêté man mii xam naa ci dara responsabilité yi ma am xam naa président Macky Sall vision bu mu am yéen jeunesse bi dama leen koy wax duma leen je je je ne vais pas vous faire rêver mais dama leen di wax loolu ëllëg da ngay si teg seen bët d'ici deux mille trente cinq un Sénégalais du soxlaaj di dem bitim réew sénégalais du dem mbëkk mi donc maa ngi leen di wax ngeen toog bañ a yàkkamti xam ni pétrole bi ak gaz bi di génn président Macky Sall daa am pàcc bu am solo bu mu ci jox ndaw donc te ndaw bu amee liggéey ay wéyuuram seen xel day dal jigéen ñi su boobaa seen xel dina dal donc nag ñu ngi leen di wax ni il faut parrainer notre candidat Amadou Ba nga xamante tey moom moo war a continuer liggéey bi nga xamante ni président Macky Sall am na ko si son plan Sénégal émergent donc j'appelle encore à l'unité j'appelle à la mutualisation des forces nañu àndandoo liggéey di woo nag tous les responsables de Benno Bokk Yaakaar di wàcc ci terrain bi parce que nag politique doo xaar ba élection ñëw nga doo ko wàcc ci terrain Abdoulaye Dièye moom bu ko xam xam ni homme de terrain la sama jiin laay sol sama training dem wax ak nit ñi loolu moom nga xam maa ngi jël kàddu kenn ku ne ak sa sant di nuyoo a di sant yàlla mi nga xam ni moo may wér ba ñu daje fi tey di sant responsable yi fii je veux dire le président Abdoulaye Dièye ñu koy wax Damel du Kayor mais d'après li ñuy suñu frère Ahmed expliqué ak li ñuy gis lu baax bi def Thiès moi je veux dire que jàppul feneen ñu ñëw ànd ak moom loolu moo ñu motivé ñu ñëw ànd ak le président Abdoulaye Dièye di leen xamal ni Thiès yi tànn nañ la pour nga jiite benn bopp yaakaar di ñaan responsable yi nekk Thiès bokk ci biir Benno Bokk Yaakaar ñu ñëw àndandoo ak yow su ko ñu liggéey jéem a réussir parrainage bi benn mais ñaar su àggee ci élection ñu mën a jox suñu candidat le président Amadou Ba ndax ñu ko bëggee loolu nag du ay wax moo koy joxe gis nga dañ Abdoulaye, vous avez la force, mais vous avez également l'intelligence de la force. Et qualité ndaje du lim bi, c'est pas l'aspect cardinal. ma sant yàlla di sant yàlla maa ngi kontaan trop ci mbooloo rawatina sama délégation lay jaare voilà di tàmbali nuyoo bi si président Abdoulaye Dièye la sœur la nourricière de Thiès actuellement nii daanaka deux mille dix neuf laa démarré créé un mouvement nekk ci liggéey nekkoon à l'étranger yi ça fait dix ans teg sama entreprise kon kii bu xëyee bu dundee politique kii bu xëyee day liggéey boo amee temps def politique kon la politique n'étant pas une fin en soi à cette personne je pense que dañoo war a def la politique positive la politique sociale et ce que ce que vous incarnez man ci lay dund saa yi ma yeewoo maa ngi dox ci soxla askan wi di dox ci soxla jeunes yi man je suis un sportif ku may seet nag ma seet ci footballeur yi dama cee dund ay année di football alors ba ma duggee ci politique damaa gëm sama bopp ndax dafa am lu ne sama gannaaw ma gëm sama askan gëm ba mu jógee te tey ma tollale fi ñoo ma ko tollale te gëm ne man de saabu fóot boppam comme le disait le président l'autre jour man ku ma àndal da ngay gagné man ku ma àndal da ngay parce que du ma dellu gannaaw damaa bokk foo xam ne luñ la wax du fu ñu teg seen tànk foofu la du ñu dugg ci tappale du ñu dugg ci caaxaan kon donc gëm naa ne ab boo doon am kay ci suuf en te tubaab nee na qui se ressemble s'assemble kon Ablaye DG kon gis nga koo ne gis sa doomu ndey foo teg tànk beneen bi maa fa nekk ak ñi ma àndal parrainage ngeen di wax teewal loolu ak ñi mu àndal pare nañ bu yàgg jox leen crise ñu remplir delloo leen moom ma ne da ngeen naa yéex vous êtes non jox leen crise ñu remplir ko jox leen ko doog a dugg fekk xale yu na lañu man bu passé moom bu passé le premier conseil municipal séeréer noonu bi am loo xam ne séeréer yi dañ ko man nañ koy jox ma jox ko lay mu jox ko kon boobu c'est vrai bu bu kii y a un gars y a une formation militaire qui va pour gagner mais non pour parce que gëm nañ le président Amadou Ba sera élu au premier tour parce que naaj yi ñun taxaw nañu dans toutes les communes man ouest la bokk mais mu xam séeréer xam ne séeréer ñoo seetlu Thiès foo dem xam nañ ma effort yi foo dem xam nañ ma parce que man li may liggéey dama cee yéwén yàlla mayoon na ma dénkaane te li ma yàlla dénk maa ngi koy séddoo askan bi matin midi soir li ma àndal li ma bàyyi ma ko nekkul man ba ma tojee west bi ci élection façon oto bu nekk gaare na sama buntu kër façon 4-4 bu nekk gaare na sama buntu kër façon 8-8 bu nekk gaare na sama buntu kër mais il me paraît l'oiseau qui est le président de la Mais il me paraît le poisson rare qui, est, qui me ressemble, c'est le président Boulaye Donc, ñun Thiès dafa laajoon lu bees Thiès dafa laaj une relève parce que ñi fi ne néew ma marketing mais dañoo kon donc Thiès dañ koy teg suñu loxo kon boog maa ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen wax ne mission bi tàmmale na amul tiit amul yox-yoxi amul dellu gannaaw amul nelaw dañ dem liggéey bu ñu balee ko doy fal kii parce que làng yi yombul kii dañ koy fal premier tour maa ngi leen di nuyu di leen gërëm jërëjëf président Abdoulaye département de kaw Kaolack région de Kaolack xam naa di ngeen wax ne foofu sori na kon fii lu muy def Thiès waaye ni ko ñëpp waxee rek waaye nag buñ dee ndax diw baax na dañu ne ndax mbokk yaa ko wax kon nag mbokki Ablaye Dieye ñoo ne la président Ablaye Dieye bu baax la kon ñun fekkoon na fekkoon na ñun ñu jàpp ne ku baax la waaye tey waa Thiès firndeel nañ ne Abdoulaye Dieye bu baax la kon maa ngi nuyu délégation feer yëpp jógee fu nekk nag ci Sénégal mbay lim na ko du ma ci jaaraat dañuy faral di def nag président Abdoulaye Dieye fu muy dem ñu ànd ak moom ànd nañ nag ak moom fu nekk ci Sénégal biñ dajee keroog Saly fa am mission buñ ko joxoon wax dëgg yàlla deful dara. bàyyi ñu ñim àndal ba tànn jotee daf ñoo woo ñu daje sali mun nañu ah élection yaa ngi ñëw pëcc xob yi bari na sigi jot na lan lay def ba ñëpp ba ci man ma ne ko ñun yow rek lañuy ñuy topp ci loo nekk ñu nga ca ci loo newul newuñu ca mu am ngor am yar lool nañ ah man ngeen di topp waaye man président Macky Sall lay topp kon man fu ma président Macky Sall joxoñ foofu lay dem loolu nag matérialisé na ko tey kon ñun suñu wax du ci sori lu remercier le président Mamadou Dieng le coordonnateur Mamadou Dieng dëkk fii Thiès seen bopp ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax a baax a baax mooy suñu kilifa moo ñu wanale ak Abdoulaye Dieye ba tey ñu seq ak moom teraanga bu nekk fii ci biir Sénégal di wax na rek jàpp leen ko am ngeen doom ju baax am ngeen doom ju yaru am ngeen doom ju am njëriñ na ko waa Cees jàpp ñun de waa Sénégal lay wax sax ñun Ablaye ji rek la ñuy su ngeen ko jàppul nag ñu jël ko kon Cees kon leen jàpp leen le président Ablaye Dieye su ngeen ko jàppul ñun dinañ ko jël merci beaucoup loolu laa bëgg a dégg jërë ngeen jëf loolu laa bëgg a dégg jërë ngeen jëf kontaan nañ heure bu ñëwee Thiès rek suñu xol gën a sedd ndax mobilisation bi ñuy gis gisuñ ko fenn Thiès a ngi mel na benn leader moo fi nekk fi mu nekk nii muy le président Ablaye Dièye kon moom lañ gis moom lañ moom lañu fekk lu ñu nekk mun na ca lu président Macky Sall nekk mu nekk kon président vive le président Abdoulaye Dièye ci kaw ci kanam vive Amadou Ba kon ñu ngi ñaan yàlla may ñu ndam au premier tour le président Amadou Ba gagné. parrainage bii nag ñu tax a jóg tey nañ ko defee woon pétition ba rek macha allah pétition bi rek tey ñi ci nekk bu ñu parrainé rek Benno Bokk Yaakaar dootul soxla beneen parrainage kon parrainage. le président Abdoulaye Dièye géré na ko ba pare def na ko bu yàgg boobu tax par naa deful kon merci beaucoup waa Thiès merci beaucoup à la délégation de de la merci au président Mamadou Dièye merci. mbooloo mu maa ngi leen ah, muy président Abdoulaye Dièye. maa ngi président du ñuy ñi nga àndal ñëpp ak képp ku fi teew ki nga xam ne yow yaa ngi tax a jóg teg ci sa loxo nuyoo mouvement dooleel jigéen ñi muy MDJ bi nga xam ni c'est un mouvement national pour l'autonomisation des femmes et des filles nekk fii mu tàllal la loxo loolu la ab lay Dieye def moo tax mouvement bi ni ko yow la fas yéene ànd ak moom dem ci parrainage yi gañe département yi nga xam ni yëpp fa la mouvement bi nekk daal di jël parrainage bi yëpp ak au soir du 24 février lépp li nga xam ni moom mooy victoire ñu teg ko ci loxo Abdoulaye Dieye mu teg ko ci loxo yërëm njaboot parce que ku yërëm njaboot rek yow yaa koy jàppale pour mu soxla ma bi wax nañ leen que mouvement pour l'autonomisation des femmes la bu nekk au niveau national waaye président Abdoulaye Dièye ménagé wul aucun effort pour jàppale leen jëmal leen kanam ak lépp loo xam ni mi ngi ruus ci li nga xam ni moom lañuy liggéey ñu daal di koy delloowaat ci biir njaboot gi ndax njaboot gi mun na soxaliku kon kooku ñun ñoo ko yoreel waaye moom yoreel ñu dara. moo tax nag ci pare parrainage yi ñu lay wax nañu takku nañu taxaw nañu comme ay soccat pour gunge la ba nga xam ni sa 15000 ñi nga xam ni jël ko ko yépp macha allah dina mot sëkk bu solo yàlla jigéen ñi nag bu ñu waxee bu ñu waxee ah, ni mouvement ni euh, euh, élection am na ñu jël jigéen ñi jiital leen ni leen yéen yéen ay électorat waaye yow xaaloo ba élection jot nga ñëw ni jigéen ñi nga àndal yàgg nga ñoo gunge ñun nag tey jii ku mënul lebale wala moo ko wax xanaa nga mën a fay ko daan la fay ba wis la DG ci kaw ci kanam ak victoire seen kuy frère Yacine suñu frère Lamine Gom yaakaar lool nuyoo bi seen loxo duñu nen ñëpp Théodore lay nuyu vraiment suñu numéro bi dafa manqué woon benn set mooy yow ñëw nga bi nga ñëwee gis nañ ni indi yokk nga si lu bëree bëri président ki yaakaar naa ni lu am solo la ñu ñu yokk kon yow doon ak jàmm di wax ni ñun Ablaye Dieye bu amul woon yaakaar naa ne dinañ ko créer bu amul woon dañ koy créer parce que dafa am président Macky Sall waxoon ñu mënoo bëgg nit ñi bëgg sa poos mais eh, loolu mën nekk soit nga am nit ñi ñàkk sa poos wala nga ñàkk sa poos am nit ñi kon nag li tax nga am nit ñi da ngaa bokkut ak nit bëgg-bëgg da ngaa yërëmul sa poos ba yàlla jox la nit ñi kon nag loolu la ñuy dee responsable kon Ablaye Dieye boo amuloon dina la créé te fierté la ci Thiès boo gisee ñu wax loolu du question nit ak nit parce que bari na lu manque si dëkk bi lu ñuy soxla ci responsable politique Ablaye Dièye def ko mate sëkk ñun nag Benno Bokk Yaakaar bu Thiès ñun ñëpp ñun ñoo taxaw nii Ablaye Dièye nii lañ soxla suñu kanam pour mu diriger Benno Bokk Yaakaar ndax ñu mën a am ndam loolu nag buñ ko defee dañ koo teg ku wóor parce tubaab day wax ni équipe bi gañ kenn du ko changé mais dañoo gis ni bañ fi nekkee 2012 ba léegi ak yenn nit ñi li ñu gañe ci élection bariwul ñu gis am laay élection locale yi mu wan ñu moom rek ak coalition si jot na ñu am dix mille et quelques voix ci benn commune loolu yaakaar naa ne du ay caaxaan kon nag président Abdoulaye Dièye yaakaar naa bu ñu ko jiitalee ñëpp ànd ak moom topp ci ginnaawam mi ñu soxla si biiru Thiès bi gagné ko yaakaar naa c'est la première fois ñu gagné biir bi yaakaar dinañ ko def kon nag parrainage bi ñu jëm dafa nekk lu am solo parce que loolu mu nekk parrainage bu réel nit nag fi ngay xamee say nit mooy li ngeen di parrainé mu ngeen fexe ba mu nekk ay électeurs ñu ko parrainé nañ ko voteel parce que kii bu ngeen ko dooleelee di ma si gis boppam politique nag du dara lu dul ki nga gën a jege nga dooleel ko parce que koo xam ne li mu am téew ko mi ngi koy bokk ak yow bu gënee am doole yaakaar naa di ci gën a gis sa bopp kon président Ablaye Dièye ñu ngi ñaanal sa militant yëpp ñu gën laa jàppale gën laa dooleel ndax li ñu soxla si Thiès yàlla defal ko salaamaaleykum et d'espoir que nous avons décidé d'apporter notre contribution à la dynamique citoyenne de parrainage du candidat Amadou Ba Chers concitoyennes, chers concitoyens, comme je l'ai déjà indiqué à plusieurs reprises, la République est notre chef nourricière. Elle de nos équilibres ethniques, religieux, sociaux. Elle constitue en réalité le socle de notre modèle de vie ensemble qui est enchantée à travers le monde. L'État est la main protectrice qui veille l'effectivité d'un Sénégal par et d'un Sénégal pour tous. Le Sénégal peut être fier des réalisations extraordinaires qui ont été les siennes durant les 60 dernières années au cours desquelles Nous avons su persévérer la paix et la stabilité. N'oublions jamais que la plupart des États qui appartiennent à notre sphère géographique ont connu ou connaissent des crises structurelles qui affectent l'intégrité territoriale et leur vivre ensemble. C'est le moment pour nous de remercier Afghanistan, qui a inscrit en action dans la dynamique de consolider nos acquis démocratiques et républicains et de promouvoir un Sénégal émergent pour un développement endogène. la gestion publique. Dans ce sens, nous nous rassemblons aujourd'hui avec un sens profond des devoirs démocratiques pour marquer le début des opérations de parrainage électoral du mouvement civil et de la coalition Benno Bokk Yaakaar à Thiès et également sur le plan national. Notre conviction demeure qu'il nous faut accompagner le candidat Amadou Ba pour qu'il continue à la tête du Sénégal l'œuvre entamée depuis 2012 par notre coalition Benno Bokk Yaakaar afin d'offrir à la République et à l'État du choix du meilleur au lieu de celui du pire. Amadou Ba, chers camarades, est le choix de l'unité et de l'espoir. C'est un choix qui reste et qui rassure. C'est le choix de la stabilité. Notre candidat est l'exact reflet de notre credo qui est rien d'autre Benno Bokk Yaakaar. C'est ce choix porté par le PSE et incarne l'équité territoriale et sociale. Notre devoir est de permettre au Premier ministre Amadou Ba de parachuter l'œuvre d'émergence économique pour un Sénégal par tous et un Sénégal pour tous entamé par le président Macky Sall depuis 2012. J'avais notre conviction pour lui donner corps, nous avons décidé avec tous les membres de la coalition Benno Bokk Yakaar de nous donner la main pour solliciter les Sénégalais qu'il parraine massivement le candidat Amadou Ba en perspective de l'élection présidentielle de février 2024. Nous appelons chaque citoyen, chaque citoyen, quelle que soit son appartenance politique, sa religion ou son origine, à participer activement à ce processus de parrainage électoral pour le candidat Amadou Ba. Votre parrainage n'est pas seulement un soutien à sa candidature, mais c'est aussi un acte de confiance envers l'avenir que nous construisons ensemble. Nous nous engageons dans cette dynamique à écouter vos préoccupations, à représenter vos intérêts et à travailler sans pour créer un avenir meilleur pour tous. Mesdames et messieurs, à ma qualité de président du mouvement Siggi Jotna avec la coalition Benno Bokk Yaakaar nous mettrons en place des équipes de collecte de parrainage dans toutes les localités du Sénégal particulièrement ici à Thiès assurant ainsi que chaque citoyen ait la possibilité d'apporter sa contribution personnelle à la construction d'un Sénégal pour tous de cet exercice un modèle démocratique participatif, mais également faisons que ça soit un exercice sérieux et un exercice fiable, parce que le parrainage exactement notre poids électoral et je pense que votre poids compte, votre parrainage compte et nous sommes ici agir en votre nom. Merci pour votre soutien continu et, et pour votre engagement envers notre nation. Ensemble, nous pouvons réaliser un avenir juste, prospère, équilibré pour tous. Vive le Sénégal, vive le candidat Amadou Ba, vive le